yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadil amiin wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen ndokkeel itam ci weeru màgg bi di leen dalal jàmm ci barab bu màgg bi di am mbégte rek fas ñëwaat ci jataay yu am solo yi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma dana koy amal ci biir weeru kor wi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttalante di jotaayu bernde waaye berndeel ruu yi ak xel yi mu mel ne ni ñu ko baaxoo rek tey dañuy ñëwaat ci beneen tomb bu yees bu am solo boo xam ne mees na ne waxtu wane mees na koy waxtaane waxtu wane mees na ciy dellu di ko nafaraat waaye nag rawatina jamono ji ñu toll nii rawatina fi réew mi toll ak euh, li nga xam ne ñu ngi koy dund yaakaar naa suñ ko waxee rek xel yépp dañ maas ci ne kat rafet na ñu jël tom bu ni ngir ko waxtaane li nga xam ne moom nañu ñu bëgg indi tey ngir waxtaane ko ginnaaw bu ñu sante ñépp rek dellu ci ñaanal si xamatul muntaxa ak suñu kilifa yu tedd yi di ndokkeel ñëpp ci turu daayira bi Muxaddamatul Xidma li ñu ko waxee mooy suñu tomb tey mu ngi jëm ci loo xam ne dañ ko fas yéene jukkee ci mbindum sëriñ Mbàkke Buso muy loo xam ne da ko bindoon euh, jëme ko ci ki ñuy wax Ngalanu Juuf mu mel ne euh, ni ñu koy tudde mooy lisaanul xaq yatakallam ndax noonu la ko tàmbalee woon leetar bi muy lu am solo loo xam ne buñ ca delloo dañ ci fekk ay bind yoo xam ne doy na sëkk ci képp koo xam ne ku na a jiite am réew la wala ku jiitam réew wala njiit rek lu mu mën di doon niñ ko mën a tudde boo ca delloo dana doy sëkk nga mën caa sukkandiku ngir la ngay doxal mën a taxaw ci euh, ak maanute waaye mën a taxaw ci liy soxali sam réew ak sab gox mu mel ne kon leetar boobu yi nga xam ne sëñ Mbàkke Buso bindoon na ko ñu koy tuddee lisaanul xaq yatakallam moom la ñu bëgg a jàngat ba koo analyser bëgg cee taxaw jël ci ay bind ki nga xam ne moom moo ñu ko war defal nag di koo xam ne miin nañ ko ci lu mel noonu daana ci def ay waxtaan di boroom xam-xam ñu xam ko itam ci dëkk bi fii itam yàgg na fay jaar muy sëriñ Sam Buso Abdourahman nekk docteur boo xam ne am njàngam lijaas yi gën a kawe am na ko ci waaye nekkoon inspecteur de l'éducation et de la formation bokk itam ci ñi nga xam ne liggéey bu màgg bi ci dëkk bi sëñ bi tàmbale ko muy complexe Cheikh Ahmadul Ahmadul Khadim bokk na ci ak njiit ya ak ña xam ne ñoo ñoo fay liggéeye kon mel na moom yëngum lépp xam-xam la ak jàngale ak yar wëlbatiku ñu dénkaat ko tomb bi nga xam ne jàpp nañ ne moom yàgg naa gëstu ci mboorum mag ñi ak turaas bi bu sëriñ beeg mag ñëpp rek kon yaakaar nañ ne dañ am li nga xam ne moom lañ doon jublu ci jox gi ñu ko jox kon kooku muy sëñ Sàmb Sa Abdurahmaan moom moo ñu fase ñëwal ci tomb bi nga xam ne fas nañ ko waxtaane incha allah kon ngir njëkkanteeg waxtu wi dañuy jox docteur sëñ Sàmb Sa ngir mu dëkkan ci tomb bu am solo bi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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi teew ci jotaay bi ak ñi koy topp ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi ñu nekk di ziyaare ki nga xam ne mooy sunu kilifa ñun ñëpp di Cheikh Mouhamadou Mountakha xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasara di ko ñaanal suñ boroom yàggal ko fi lool te yokk ko wér di ziyaare suñu kilifa yi yi nga xam ne ñoo ñooy taxawu liggéey bi di waa muqaddamatul xidma ñaan suñu boroom mu barkeel seeni jéego li nga xam ne moom lañ ci yéene ci liggéeyal ci lislaam liggéeyal ci sëriñ bi suñu boroom defal leen ko ci di ziyaare ki ci bopp bi muy al imaam sëriñ Afia Bousso di sant suñu boroom ci teewaat ci jotaay bi ni ñu fi daan teewe ci at yi weesu di ko ñaan mu defal ñu kàttan bañ mën koo teewaat at yu bari tomb bi nga xam ne moom lañu ñu bëgg a waxtaane ci sëriñ Abdul Ahad laltaay ko te mu jëm ci ab bataaxel boo xam ne sëriñ Mbàkke Buso moo ko bind ñu koy wax lisaanul xaq yatakallam moom lañ koy tuddee ngir laltaay waxtaan woowu nag dañuy wax ne rekk day baax xeet wu nekk nuy bàyyi xel lanu moom nga xam ne mooy seen patrimoine ñu fonk ko di ca dellu ndax bala nga ubbiku ci àdduna dangay dëgëral say reen ci li nga moom ci sa bopp te nun suñ boroom defal nu mag ñoo xam ne daf leen a may ci wàll yu bare bari wàllu xam-xam bu yaatu boo xam ne yàgg nañ koo jàngale mu doon xam-xam boo xam ne réew mi war nañ koo mën a jariñoo ndax bala nga mën a avancer dëgg jëm kanam day fekk li ngay doxal li ngay nas nga dëppale koog say réalité mooy tax nga mën a dox doxin wu jub te wàll gi nga xam ne mooy ni war a yore am réew dafa mel ne lu ci baree bari dañ koy jëggaane ci yeneen xeet yoo xam ne bokku noog nun ñuy jële ci ñoom di ko jëfandikoo ci suñum réew ci wàll yu baree bari muy wàllu koom-koom wàllu politique wàll yu baree bari liñ ciy doxal ci suñum réew li ci ëpp dañ koy jëggaane te yàlla def nag nu am loo xam ne fu nu toll war nañ koo mën a jariñoo ndax li ñu fi sunu mag ñi bàyyil ci xam-xam loolu bu ñuy tëral yoon yi ñu war a jaar moo xam ci politique la moo xam ci koom-koom la ñu warees koo mën a warees caa mën a dellu war caa mën a jariñu bañ a rekk yam ci lépp lu ñuy doxal dañ koy jële ci bisi kon nag bu muqaddamatul xidma tànnee bataaxel boobu nga xam ne sëñ Mbàkke Buso moo ko bind te jëmale ko ci koo xam ne dafa falu woon mel na ne waxtu wi ñu ko tànn waxtoom la ndax umplewu leen ne jamono yi ñu toll ñi ngi nekk ci di tànn ki nga xam ne ëllëg moo war a jiite réew mi mu mel ne kon ab bataaxel la bu yàgg waaye bataaxel la bu jamono boo xam ne ñi war a jiite réew mi ëllëg war nañ koo dégg dégg li ci nekk ndax ñu man cee sukkandiku ba doxal suñum réew ci anam goo xam ne gu mucc ayib lay doon anam goo xam ne gu am njariñ lay doon kon tomb bi ñu ta tànn ak waxtu wi ñu ko tànne am na lool ak méngoo loolu nag ñu ci rafet njort ne xëy na kon dana doon ab yóbbal ci ñi nga xam ne ñoom lañu war a tànn ñu jiite réew mi te ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñañuy tànn yàlla nekk ci ñi gën ci réew mi yàlla nekk koo xam ne dana liggéeyal réew mi koo xam ne yaakaar yi nit ñi am yépp suñ borom mën na koo jaarale ci moom mu jubbanti li mat a jubbanti defar li mat a defar kon buñ bëggee waxtaane leetar boobu nga xam ne sëñ Mbàkke ko bindoon jëme ko ci koo xam ne dafa falu woon di ko ca dénk dañ koy tënk rekk ci ñaari tomb yu mag te mooy jëmmi bataaxel bi li ko taxoon a jóg ak ni ko sëñ Mbàkke binde ak li nekk ci biir lim ëmb bu ñëwee ci beneen tomb bi nag ñu jukki li nga xam ne moo jëm ci ndénkaan yi mu doon dénk ngalanu ñu taxaw ci xool ni nga xam ne ni la ci indee doxaliin woo xam ne ku ko topp mën ngaa jariñ bu baax a baax sam réew muy ku bëgg a doxalin wu mucc ayib ku bëgg a yor réew mi yorin wu mucc ayib boo dégloo bu baax njàngale mi nga xam ne nekk na ci biir bataaxal bi mën naa doon lu ama am njariñ moo tax kon ñu bëgg cee taxaw ci wàllu googu wane li nga xam ne mooy doxalin wu jub doxalin wu mucc ayib ci wàllu politique maanaam ku jiite am réew ni nga war a doxale dafa am pàcc bu yaatu boo xam ne ñëw na ci bataaxel bi foofa incha allah bëgg nañ koo yaatal kon bu ñëwee ci bataaxel bi nga xam ne bi ko sëñ Mbàkke Buso di bind ci 1900 34 la bi nga xamee ne yàlla dogal na ngalandu ñu fal ko dip dip député mu war a teewal Sénégal ca fee nga xam ne mooy péncum ndaw réewum ca France ndax booba Sénégal amagul indépendance mu doonoon xew-xew boo xam ne ci wàllu politik xew-xew bu am solo la ndax booba Ngalandu moo falu fekk ki ko jiite woon mooy Blaise Diagne te Ngalandu moomu nag bi mu faloo fekkoon na am xew-xew yi fi amoon ba suñu genn kilifa gu mag muy maam Cheikh Anta boroom gaawaan ñu bari danañ dégg ne nekkoon na Mali tubaab bi exilé ko fa yaakaar naa kuy topp kuy déglu sëñ Moussa Ka ci xasidaam googu nga xam ne ci lay wax nattoo di kerkeraani lawliyaa yi ba mu jeex booba ma nga ca doon nettali di ci wax di ci jàngat nattu boobu nga xam ne moo amoon ci suñu kilifa googu di maam Cheikh Anta mu yéegal ko ca nattu yi nga xam ne moom la suñu boroom di nattoo nitug yàlla yàlla dogal bi ngalandu faloo moom da ko bekk na ci ay taxawaayam fexe ba mu dellusi ci réew mi ginnaaw bu suñ boroom jeexale nattu ba mu doon bataaxel boo xam ne mool nañ ko am na suñ mbokk docteur Xaadim am na téere bu mu génn bind ci génne ci mbind sëñ Mbàkke Buso génne waale na ko ca sëñ Siidi Buso moom sëñ Mulaay rahmatullahi taala alayhima bokk na ci ñi ko dajale woon boole ko ci mbind yi sëñ Mbàkke Buso yu bari ba génne woon ko ba tasaare woon ko kon leetar boobu tasaaroo na loolu it li taxoon sëñ Mbàkke Buso bind ko it muy contexte bi mooy li ma wax mooy soppiku yu amoon ci wàllu politique ba am ku falu bi mu faloo mu bind ci moom bataaxel boobu bu ñu xoolee li nekk ci bataaxel bi maanaam ni mu ko uslub bi mu ko bindee mooy style bi mu ko bindee ku ne xam ne sëñ Mbàkke bindkat la woon adib la woon mooy ñu wax homme de lettres la woon ku mënoon a bind araab la daan jëfandikoo ci arab mbindiin yu yéeme boo seetloo bataaxal bi day mel ne bu doon léegi li ñuy wax lettre ouverte la maanaam mooy bataaxal boo xam ne da nga koo jëmale ñépp waaye nekkul bataaxal boo bind adressé ko kenn mu war ko jàng bu noppee denc ko waaye dafa am bataaxal boo xam ne da nga ci doon wax ak ñépp bu ngeen xoolee na mu ko ubbee da cay feeñ ndax dane lisaanul xaqi yatakallamu fa ansitu lahu ayuha sénégaliyuun kon mooy ñu dëgg mooy wax kon yéen waa Sénégal na ngeen ko xerawlu na ngeen ko déglu kon waxutoon ak kenn waaye Sénégal gépp la doon waxal fa ansitu lahu ayuha sénégaliyuun tafhamu wajcalu afidatakum awciyatan lahu turxamu kon mu mel ne mi ngi ñu ci bàyyi loo xel ne lu am solo la ciy wax loo xam ne warees na koo dégg te buñ ko déggee jàpp ko dana doon njariñ dana doon yërmande kon moo tax mu ne tafhamu ca bu waj'alu afidatakum awiyatan lahu turhamu kon suñ ko déggee jàpp ko ci suñuy xol jëfandikoo ko yërmande moo moom lañ cay jële kon dañ ciy dégg ne sëñ Mbàkke Sénégal gépp la doon waxal li muy wax ak ñoom it bëgg nañu ñu dégg ko ndax buñ ko déggee it de lay doon ci ñun waaye ni muy waxee nag bari na sax ñoo xam ne am nañ jafe-jafe ci dégg ko ndax dafay wax ci làmmiñu suñu boroom làmmiñu suñu boroom te day mel ne moom waxut waaye yàlla mooy wax ak ngelanu yàlla mooy wax ak nit ñi naan leen man maa yàlla maa def maa fal maa folli na ngeen ma sant kon ni muy waxee dafay mel ne ci kàddu suñu boroom la doon wax moo tax uslub boobu damay fàttaliku sax am na mbokk mu ñu ko doon traduire loo da cee am jafe-jafe ndax waxin woowu miinu ko day mel ne kon sëñ Mbàkke dafa def boppam yàlla te fekk xamul ne uslub la boo xam ne uslub adabi la boo xam ne day wax ci turu suñu boroom mel ne yàllaay wax te loola it dafa am loo ci mën a dégge danga ciy dégg ne li muy wax moom du waxi boppam waaye boo ko seetloo waxi suñu boroom la lim ciy jàngale lépp du loo xam ne ay xalaat boppam la waaye njàngaleem suñu boroom la moo tax mu mel ne yàlla mooy wax ak nit ñi ci biir leetar bi kon uslu boobu la jëfandikoo te tànn gim tànn turu yàlla wi nga xam ne mooy alxaq ndax turu suñu boroom yi bari na mënoon na ne lisaanullaahi yatakallam mënoon na lisaanul rahmaan yatakallam waaye lisaanul xaq yatakallam da nga ciy dégg ne li muy wax kon dëgg la goo xam ne moom seetu ci boppam nga xam ne li ñuy wax mawduiya muy objectivité moom moo ciy am ndax waxut ak bakkanam waxut ak xalaatam waaye ci tu làmmiñu suñu boroom mooy wax muy uslub boo xam ne kon bu am solo la bu mat a xam la ndax dafa am maanaam li tax mu tànn waxiin woowu mënoon nay wax mel ni mooy wax mel ne mooy dénkaane waaye day mel ni suñu borom subhanahu wa taala mooy dénkaane kon danga ciy dégg ne dénkaane yi ci nekk lépp njàngaleem suñu borom la waxi suñu boroom la kon contexte bi nga xam ne ci la bataaxel bi ci la ko bind xam nañ ko ni mu waxe xam nañ ko waaye nag lan moo nekk ci bataaxel bi ci biir ci ak tënk dañ koy mën a séddale ñaari xaaj xaaj bu njëkk boo xam ne ci ngalanu la aju ak xaaj boo xam ne ci maam Cheikh la aju bi aju ci ngalanu moo gën a yaatu bi aju ci ngalanu da nga gis lu mat ñeenti mbir mbir mu njëkk mi danga nga ciy déggaale walla gisaale ci li nga xam ne noonu la lislaam gise nguur maanaam nguur fan lay jóge fan lay soqikoo loolu am na lislaam gisin wum gis ne nguur noonu la ci nit di jote loolu feeñ na ci njëlbeen gi ndax li mu wane mooy nguur li ñuy def lépp sabab la waaye suñ borom moo koy joxe suñ borom mooy joxe nguur kon ar ruyatul islaamiya ci sulta mooy suñu boroom mooy joxe nguur wote sabab la ci lépp bu yoon wu nit mën a jaar aw yoon la waaye ngir mu jot ca nguur ga day fekk mu soob suñu boroom ndax boo jàppee ne liikat man lañu fal waaye ba buñ lay fayal dala fay fekk sa bakkan dafay ne bu soobu doon suñ boroom yow doo fa nekk bañ lay fal kon nga xam ne boo amee nguur fekke ko tal ko kon yàlla da caa ànd moo tax ci bataaxel bi dangay gis suñ Mbàkke bi mu tàmbalee nam cay waxe wax ne ci nga xam ne ci làmmiñu suñ boroom lay wax da caa wax ne anal muizzu wa anal muzillu ana axkumu wala muaqiba li xukmi man maay kii teral ku am tedd nga man maa ko maa ko jox tedd nga man maay wàcce ku torox man maa la toroxal man maay joxe tedd nga maay wàcce nit te sama àtte amul ku ca mën a teg dara mooy li ñuy wax recours àtte suñu borom moom la maanaam amul recours moom lu mu àtte laa muaqiba li hukmi noonu la ko waxe mu wax ne ana allazi ajlastu ngalandu ju fawqa arshil majdi man yàlla ma jël ngalandu teg ko ci seesub tedd nga man maa ko fal kon noonu mu tàmbale wax ji danga ciy déggee ne kon nguur yàlla moo koy joxe danañ ko sabablu nag ci anam yuñ koy mën a sababloo waaye nit ki bu ko yoree war naa xam ne yàlla moo ko ko jox ñaareelu mbir mi mooy waxaale na ci ay melokaan wala ay critères yoo xam ne moom lañ war a fekk ci kiy jiite waaw kiy jiite wax na ci ngalandu ay melokaan yoo xam ne dañ koo soxla ci képp koo xam ne fal nañ la wala warees na laa fal muy ay critères ndax dacaa wax ne ana xalaqtuhu musliman wa sayyartuhu aminan li ahli hada alqutri alsaid safiirahum muntaxabahum qadiman wa xadisan naaiban anhum fi umuuri dawlati mardiyahum fi jamici zalik loolu mu wax ne man yàlla ma bind du def ko muy jullit kon pas-pas lu baax la ci ki war a jiitu mu am pas-pas mu gëm yàlla ndax melokaan woowu tuddal na ko ne man maa fal maa ginnaaw bi waxee ne man maa ko fal wax na ne man maa ko bind def ko jullit waaye def ko muy amiin mooy ku wóor ku honnête kon loolu it melokaan la wu baax ginnaaw bu nit ki gëmee ba noppi mu nekk ku wóor ku am amaana waaye ma def ko muy ndawul réew mi maanaam mooy di taxawal réew mi waaye du taxawal boppam fu jëm réew ma la fay yóbbu waaye du boppam la yóbbu ma def ko mooy kii wuutu réew mi mooy ki nga xam ne waa réew mi gërëm nañ kon mbir yooyu lu baax la ci njiit mooy ñi ñi ñi nga jiite gërëm la maanaam mooy nangu nga jiite leen waaye yow nga nekk seen ndaw waaye nga nekk koo xam ne ku jullite nga mooy ku am pas-pas nga ku gëm nga waaye ku wóor nga kon yooyu jikko yooyu nga xam ne waxal na ko ngalandu ci dañ ciy dégge kon ay melokaan la yoo xam ne baax na ci képp koo xam ne dañ laa war a tànn melokaan yooyu nekk ci yow mu wax ne ñi ko jiitu ñépp kenn mësu ci dajale melokaan yooyu mu ne walam ajal tilka aswaaf awsaaf fi ahadin min ahli hada alxutri sénégali qabla ñetteel bi nga xam ne ñëw na ci xaaj boobu nga xam ne moom mooy xaaj bi mu jagleel Ngalandou juuf ginnaaw bi mu waxee fondement bi nga xam ne ci la jote nguur gi te mooy yi suñ boroom ak melokaan yi mu amee dafa wax xew-xew yu xew ca jamono jooja contexte bi waxaale bi mu falee Ngalandou juuf ña nga xam ne ñoo nekkoon ay adversaire fañ mujj nañ ñàkke nguur ga nañ tasaaroo luwaay ya nga xam ne dañ koo tëraloon nañ ko soppee loolu lépp sëñ Mbàkke wax na ko ci lettre bi ña nga xam dañ leen a folli ñeeg kenn ku nekk dem ca dem sa yoon loolu junjaale na ko ndax wax na ne ana amittu ila aadaihi fa nafaytu minhum wa afnaytu wa dalaltu kayda man minhum ab xayt loolu kon mooy la xew ginnaaw ba ñeenteelu mbir mi nga xam ne moo aju ci Ngalalu Juuf te mooy ndénkaan yi mu ko ci dénk boobu moo ci gën a yaatu boobu ci lañ bëgg taxaw danañ ci dellusi ginnaaw bi ñu jàllee ci xaaj bi nga xam ne moom la jagleel maam Cheikh Anta waxoon naa ne leetar bi mën nañ koo xaaj ñaari xaaj xaaj bi mu jagleel Ngalanu Juuf nga xam ne wax na ci moom jikko yooyu waaye da ko cee dénk ndénkaane lu yaatu nga xam ne moo gën a yaatu ci leetar bi loolu dañ ciy ñëw ginnaaw ginnaaw bu ñëwee ci xaaj bi nga xam ne moom la jagleel maam Cheikh ci biir leetar bi xaaj boobu am na ñetti mbir yu ci nekk mbir mu njëkk mi mooy wax na nu maam Cheikh Anta mel ay melokaanam da ko cee was maanaam dafa wax maam Cheikh Anta nu mel melokaan yooye mu waxal Anta mooy koo xam ne du jàppal kenn dara ku laabiir ku woyof ab xol ku bari yërmande ku tabe lool mën a dimbulee noonu la maam Seex Anta meloon ci lim ci wax ku daan joxe ndeyjoor ak càmmooñ daan joxe guddeeg bëccëg koo xam ne ab joxeem akub dimbulee xàmmewu ca woon ab soppeem wala ab noonam xàmmewu ca woon ku sori wala ku jege mu wax ne noonu maam Seex Anta meloon nag daanaka li ko dal moo ko ko teg ndax ci mën a dimbuleem ndax xam ngeen ne maam Cheikh Anta ku yàlla mayoon la ndax moom li ñu koy waxee ci biir murit gi mooy borom dërëm ak ngërëm mooy dafa amoon barke mënoon a liggéey bari woon alal ndax 1919 moo nekkoon ki ëpp alal ci Sénégal 1919 moo nekkoon ki ëpp alal ci senegal ci li nga xam ne bind nañu waaye alalam jooju nag da ci doon def lu baax rek di ci dimbulee ndax bokk na ci li ko tubaab yi doon tuumaal ndax ni mu doon dimbale nit ñi di jàppale nit ñi nga xam ne ku tubaab yi bëgg a toroxal mu taxaw ci sawet ba jàppale la loolu dañ koo jàppe woon perturbateur maanaam dañ doon agitateur lañ ko doon tuddee maanaam koo xam ne daal ñoom liñ bëgg a def moom bokk na ci ñi tax munuñu koo def waaw ndax luñ bëgg a tëral kuñ bëgg a bunduxatal kuñ bëgg a nat kuñ bëgg a kii moom mu taxaw ci wetam jàppale la nekk ci wetu néew doole yi loolu nag tubaab bi bëgg ko woon tubaab bi mu dafa bëggoon a nit ñi jaar ci seen kaw lu ko neex def te ndimbal loolu nag dafa mel ne comme xaritab ngalalu sàkk woon na ci moom mu dimbale ko te xam nga ne politique politicien moroom ji moom ay adversaire dañuy jàpp ne boo dimbalee sama adversaire man man ngay xeex te moom mu doon dimbale ngalalu ci leetar bi sëñ Mbàkke xam la ne ci ne melokaan woowu maam Cheikh Anta meloon lu ko yàlla bind la même noonam ay noonam yi nga xam ne jàppoon nañ ne da leen a contre bu ñëwoon sàkku ci moom dimbal mu dimbale leen waaye nekkutoo ne dafa jubloo dimbale kii ngir xeex kii moom dafa baaxoon laa biir rek moo tax mu mu wax ne su ma la mu xam leen yéen waa senegal ne anni ana allazi xalaqtu cheikh anta man maa bind cheikh anta ala xalaqtuhu alayhi ci la ma ko binde min salaamati sadri wa riqati alqalbi wa xuluwi albaali moom melokaan yooyu man man yàlla maa ko def ci moom man yàlla maa ko bind mu doon koo xam ne du du ci jàppal kenn dara ku bari yërmande lool koo xam ne du jàppal kenn dara ëmbalul kenn lu bon ëmbalul kenn ak keñaan te man maa ko binde man a dimbalee wa xawaltuhu maa xawaltuhu maa ko jox li ma ko jox wa jabaltuhu ala al infaaqi maa ko binde muy dépenser man a joxe bi ma razaqtuhu ca la ma ko wërsëgale yaminan wa shimaalan day joxe ndeyjoor ak càmmooñ laylan wa nahaaran day joxe guddeeg bëccëg wala yumayisu fi zalika sadiqan min aduwin xàmmeewul ku dib xaritam wala ku dib noonam mu ne li an wala qariban min baidin xàmmeewul ku jege ak ku ko sori moom da doon dimbalee rek bari bari le woon waaye bari woon yërmande mu ne li annahu majbulun ala zalika laa kasba lahu fihi loola sax yàllaa ko ko bindee nekkul lu mu fàggu waaye lu ko suñu borom defal la moo tax mu ne falaw anna aadaa xalilihi mu ne xaritam bii nga xam ne mooy ngelalu su fekkoon ne noona ay ay noonam mooy ay adversaire am atawhu min al jihati allati ataahu huwa minha la naaloo minhu ma naala kon adversaire u ngelalu li ngelalu amee ci maam Cheikh Anta ñoom bu ñëwoon dana leen defal lim ko defal waaye ñoom dañoo jàpp rek ne da ko doon jàppale ba tax ñu def ko ab ab noonu kon loolu mu ngi ñu ciy wax maam Cheikh Anta xew-xew yooye la ko waral ak moom melokaan wa ko yàlla binde woon ak taxawaay ba mu amoon lu ko waral waaye junj na ci it ne loolu ñu ko doon tuumaal moom da cee set wicc lañ ko doon waxal lépp dara amu ci ndax xam kenn xamewu ko ko mu wax ne man li nga li nga xam ne moom lañ koy sànni gi ko ko tuumaal loola dara dara dara amu ca moo tax mu ne walakin aksara annaasi laa yaalamuun li ëpp ci nit ñi xamuñu lu xew moo tax mu ne fa ramawhu bi ma ramawhu bihi ñu koy taqal lañ koy taqal ñu di ko sànni lañ koy sànni mimma la yaliqu wala alamuhu fii munzu xalaqtu li nga xam ne moom yi jaaduwul ci moom te xawma ko ci moom ba ma ko bindee ba léegi ñu fàttali ko ne ci làmmiñu suñ borom lay waxe ñetteelu mbir mi li aju ci maam Cheikh Anta mooy dénkaana yam ko dénk mu dénk ko ca nag ay mbir lu ma ñeenti mbir dénk na ko ko la ca jiitu mooy na muñ na muñ maam Cheikh Anta ne ko na muñ ci liñ lay tuumaal ca nga xam ne yow set nga ci wicc mu ne ko yaa fashkur li yaa cheikhu bi sabri ala ma qiila fiika wa taalamu annaka yi minhu kon na muñ ci liñ lay waxal te yow xam nga ne set nga ci wit nankaan yooyu kon nit ki bu ñu ko dee tuumaal ca lañ koy tuumaal du dëgg moom da caa war a da caa war a muñ da caa war a daa war a muñ loola waaye mu ne ko santal yàlla mi nga xam ne moo la delloo ci sa kër ba noppi setal la waaye nag na nga taqoo jaamu yàlla ci sa kër te la ka des mooy na nga wakiirlu ci suñu boroom ci mbirum wërsëg wërsëg yi nga xam ne suñu boroom moo la ko jox na ko ko bàyyee moom la koy moom moom moo la koy saytul ba xéewal yi nga amoon day gën a yokk waaye du wàññeeku kon loolu mooy tënku bataaxel bi li aju ci Ngalanu Juuf nga xam ne wax na ca nim faloo te yàlla moo ko fal wax ci ay melokaanam waaye nag mu dénk ko ca dénkaan yoo xam ne ci lañ bëgg a ñëw ci ci kanam tuuti waaye ginnaaw bu mu wax ci maam Cheikh Anta wax nam meloon ak taxawaay ba mu amoon lu ko waral waaye wax dénk ko ne mu muñ te sant yàlla tey sax ci jaamu yàlla te wakkiirlu ci yàlla bu ñëwee nag ci ndénkaan yi nga xam ne jëmale na ko ci Ngalandou Diouf dafa jëm ci anam giñ war a yore am réew te ci suñu waxiinu léegi ñu di koy tudde bonne gouvernance maanaam mooy saytu bu baax maanaam gouverner ci anam goo xam ne gu jub la gu mucc ayib la kon leetar bi bala nga koo dégg dëgg wax ji ak xóotaay wi nga xam ne day mel ne tey lañ ko bind day fekk nga xam lan lañuy wax ci bonne gouvernance ñi nga xam ne jàngat nañ ko ba gis ne ku yorum réew ngir yorin wi jub fokk nga sàmmonteeg principe yii fokk nga sàmmonteeg ponk yi boo xamee yooya ba noppi dellu siwaat ci leetar bi day gën a leer ci yow moo tax foofu dañ fi gaaral tuuti rek ci li nga xam ne mooy yorin wu jub ci ni nga xam ne noonu lañ koy jàngalee ci wàllu politique léegi da ngay gis ne ma li sëñ Mbàkke bu soo indi ci ndénkaan yi dafa gën a sori loolu gëf gën koo xóot te ëmbaale na ko ndax bu ñuy wax ci bon gouvernance léegi maanaam mooy saytu bu jub yorin wu jub waxtu wu nekk ñu ngi koy dégg ci média yi di ko dégg ci organisation internationale yi ndax bokk na ci sax Nations uni ak xeeti banque mondiale ak yooyu dañuy wax ne réew ngir ñu jàppale ko day sàmmonteeg li ñuy wax bon gouvernance moo tax mu donc baat boo xam ne bu siiw la léegi ndax dañ ko bokk ci seeni charte ngir ñu mën laa jàppale te bon loolu yorin wu jub woowu nag mooy la ca jiitu mooy réew mi lim am ci ay koom-koom muy wax ñu koy wax ay ressources danañ ko saytu saytu wu mucc ayib ba kenn ku nekk la cay sàq nga mën koo jot nga xam ne doxaliin wi ngay doxal njariñu réew mi nga ciy seet ak njariñu nit ñi nga ciy seet te ba noppi la ngay doxal mu nekk loo xam ne lu jub la doon lu jub lay doon lu leer lay doon moo tax ngir loolu mën a am am na ponk yoo xam ne dañ ne ku sàmmonteeg moom ci la ñuy natte ndax yow saw doxalin jub na wala déet ni ngay gouverner baax na wala déet am na ay ponk yuñ koy natt yooyu dañ ciy tudd ñeent yi ci gën a fés ñeent yi ci gën a fés mooy li ñuy wax almasuliya mooy responsabilité wala musa ala te mooy kenn ku nekk ak foo mën a nekk la ngay def des na la ko laaj maanaam autorité bu mu mën a doon am na lu la féete kaw loo xam ne la ngay def moom dina ko càmbar nga wax ko lañ la joxoon la nga ca def ak lu tax nga def ko ca nga xam ne kenn daal lu ne am naa loo xam ne man lii ma yor kenn duma ko laaj am réew loolu waru caa am doxalin wu baax nit ki am sañ-sañ boo xam ne kenn du ko laaj li muy def nga xam day mel ni xaw day day jël laa yusalu amma yafaal jooju suñ borom nga xam ne moo ko jagoo nit waru koo mën a am cim réew même boo nekkee président de la république sañoo ñàkk responsabilité ci loo loo def lu nekk war nga ko war na war ngaa taxaw ñu laaj la lu tax nga def loolu dafa bokk ci ponk yi nga xam ne boo dem directeur la nga yor dees na la ko laaj boo dee ministre la nga yor dees na la ko laaj boo dee maire la nga yor dees na la ko laaj mooy amul ci réew mi lu ñëpp bokk looy yor sañ caa doxale loo xam ne ëllëg kenn du la ko laaj loolu ponk la ci bon gouvernance maanaam doxalin wu baax autorité bu nekk am na lu ko féete kaw loo xam ne moom la muy doxal dana ko ca laaj ñaareelu ponk bi mooy li ñuy wax ashafafiyatu mooy ak leer te mooy transparence maanaam ni nga xamee ne weer bu setee wicc dara takku ca boo taxawee ci kanam la ca ginnaaw da koy séen loolu mooy transparence bu dee ci aw doxalin nag mooy li ñuy doxal ki jiite wala ñi yor ndombay tànk lañuy doxal lépp dafa war a leer ci ñi nga xam ne ñoo leen fal a amoo sañ-sañ yor loo xam ne réew mee ko bokk ñépp a ko bokk nga di ca doxal loo xam ne kumpa lay doon ci nit ñi ndax kumpa mooy tax nga sañ def lu jaaduwut te kenn du ko xam moo tax ngir doxalin mën a baax li ñuy wax shafaafiyatu te mooy transparence te mooy lépp leer da caa da caa doon loo xam ne munu caa munu caa munu caa ñàkk kon mooy ñaareelu ponk bi ci bonne bon gouvernance mooy ki jiite décision yi muy jël mooy dogal yi muy jël dañoo war a xam dogal yooyu lu tax mu jël ko ak yan njariñ moo ci nekk ba mu jël dogal yi maanaam doo jekk-jekk rek génneb arrêté wala génneb décret wala génne dàngam ne nàngam mooy moom la ñu doxal te loolee ngay génne xamuñ lu tax dañ ko war a xam maanaam loolu mooy na ci bokk na ci transparence mooy lépp bépp dogal boo jël ñu xam dogal bi lu tax nga jël ko te lépp loo xam ne projet la booy doxal di ko liggéeyal nit ñi nit ñi ngay liggéeyal projet bi nañ xam lu tax nga jël projet bi ak noo nuñ ko nar a sottale ci yan moyen lañ koy sottale ñaata lay jar loolu lépp ci transparence la bokk maanaam mooy looy doxal lu nekk nit ñi war nañoo xam li ngay doxal lan la doo jekk-jekk ñëw ni nit ñi dama leen di defaral nangam ca xam xamuñu loolu nga leen di defaral lu tax nga leen koy defaral yow boo ko defaree ñaata lay jar li nga koy defaree fan lay jóge ñoom lan lañ ciy jëlee ci njariñ kon mooy loolu moom la ñuy wax transparence ma daal doo def loo xam ne kumpa la ci ci nit ñi donte seen njariñ la waaye bu mu doon seen kumpa loolu ci transparence la bokk kon li jiitu ci mooy musaa ala mooy responsabilité la ca topp mooy transparence boobu ginnaaw ba la ca topp ci ñu aw doxalin wu jub mooy yamale musaawaat yamale nag dafa am yu bari yum ëmb maandute ci la bokk maandute nit ñi yem buñ ko dee wax nag ci réewum réew moo xam ne dafa am loi mooy dañuy wax ne ñépp yem ci kanam loi bi ñépp yem ci kanam luwa bi damay wax ne foofu la tax ñu doon ko wax mooy ki ñuy àtte ak ka muy àtte mooy kii yiif ak ki mu yilif ñépp ñoo yam ci kanam loi am na réew yoo xam ne bu la police jàppee ci mbedd mi bu ngeen juboowu nangu nangu woone lim la wax ne yaa ko def nangu woone yaa ko def da ngeen di ànd dem taxaw ca kanam siige ba mu lay nga lay loolu mooy ñépp ñoo yam ci kanam loi waaye su fekkee ne dañoo jublu ci kanam luwaa ñëpp yam mooy citoyens yi nañ yam ci kanam luwaa mais ñi yor ñi jiite ñoom luwaa bi du tegu tegu ci seen kaw loolu waxee su fu ñu ko waxee rek mooy ñi am doole ak ñi ñàkk doole ñoo war a yem ci kanam luwaa fii nag dañ koy wëlbati waaw ñoom day mel ne bu ñu koy wax duñ ci boole ñi yor nguur gi fekk te lañ ca jublu woon ci cosaan mooy ki yor nguur gi ñi ko yor ñi yor nombay tànk ak ñi nga xam ne dañ leen a jàppe ay baadoo la ñoo yem ci kanam loi waaye su fekkee ne loolu nag lay tax mu mën a am kon day fekk loi yu baax am day fekk réew mi nekk li ñuy wax état de droit ba ca des ci yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàppe ay ponk ci doxalin wu jub mooy li ñuy wax musharaka mooy nit ñi participation nit ñi nañuy bokk ci yorinu léew mi waaw bokk na ca li nga xam ne mooy ay décision yu ñuy jël ñoom nañ ca bokk ca ña koy jël mooy nañ ca am seen xalaat nañ ca am seen gis-gis ñi ñuy fal di leen tànn nit ñi nañ ci bokk nga xam ne kon lii ñuy def kenn ku nekk bu waxtu wote jotee nga am sañ-sañu dem wote ji loolu dafa bokk ci doxalin wu baax doxalin wu jub kon moo tax réew muy dox ñu di ko doxal ci doxalin wu jub waruñoo gàllankoor bu tànn jotee nit ñi war a mën a tànn këñ bëgg a tànn ci anam goo xam ne gu leen jubu lay doon nga xam ne kenn du defi pexe walay tappale ngir jeexital ci tànnif nit ñi waaye dañ leen bàyyi ci seen liberté ñu tànn kiñ yaakaar ne moo gën kon loolu loolu la ñuy tuddee participation mooy citoyen yi mooy waa réew mi dañoo war a bokk ci yorinu réew mi te bokk ci yorinu réew mooy ña ngay tànn ñu teewal la yow yaa leen di tànn ñu doy la waaye duñ doon ñoo xam ne dañ la ko imposer du doon loo xam ne dañoo def ay tappale ba jeexiital ci saw tànn loolu yëpp bokkul ci li nga xam ne mooy euh, doxalin wu jub ca damay wax ne loolu ñun dañuy jàpp ne lu yees la dañuy jàpp ne lu yees la waaye bu ñu seetlu woon njàngaleem lislaam da ngay gis ne lim nu jàngal ci nu ñu war a yore am réew moo gën a dëgër lii sax ñu indi ca ëmbaale na ko ndax bu dee maandu diggante nit ñi xoolal alquran li mu digal jullit ñi ci maandu ak lim ci wax ci ay aayaat li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon bu ñu négee ba ba ba tey ñu jàpp ne ak maandu maanaam doxal maandu dañoo war a xaar ba Nations Unies ñëw di ñu ko defloo wala dañoo war a xaar ba ay munazamaat wala ay ONG ñëw di ñu ko defloo loolu day mel ne jullit yi dañoo xaw a nasax dañoo xaw a ñàkk a sàmmanteeg seen diine waaye kon ñoom ñoo koy jàngal àdduna bi waaye kenn du leen ko jàngal. ndax suñu borom subhaanahu wa taala bu ñuy wax ne bu ma wàccee wàcce naa ay yonent jox leen ay téere jox leen ay tegtal jox leen ay firnde jox leen ñu war a atte ci maandu moo tax ma ma ma ma wàcce li ma wàccee lépp boo demee ci suñ borom fi muy waxee ne laqad arsalna rusulana bil bayinaati wa anzalna maahumul kitaaba wal mizaana lum ca teg mooy ngir nit ñi jaar ci ak maandute jaar ci dëgg kon suñ borom moo ñu njëkk a jàngal dëgg ak lim ci digle inna allaha yaamurukum an tuwaddul amaanaati ila ahliha wa ida xakamtum bayna annaasi an taxkumu bil adl kon maandu googu nga xam ne lislaam moom jàngal nanu ko nu war koo sàmmonteeg moom nun noo ko war a jàngal àdduna waaye waruñoo xaar ñeneen ñëw nañu ngir seen doxalin jub yéen da a war a doxal ak maandu ñaareel ba nit ñi bokk bokk ci ni ñuy saytoo loolu suñ borom moom lim ñu jàngal mooy dañoo war di diisoog nit ñi bu waxee diisoo nag mooy mushawara mooy li ma doon wax lenn lu nekk ginnaaw ci nit ñi ñoo ko moom yow dañ dañ la ko dénk la nga cay doxal seen njariñ la war a doon kon la nga cay def war nañ caa am baat kon la nga cay def war nañ caa am baat moo taxoon diisoo suñ borom digaloon ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa shaawiruhum fil amri waaye wax ne jullit ñi seen mbir yépp ci diisoo lañ ko war lañ ko war a teg wa amruhum shura baynahum waaye li ñuy wax masuliya nga xam ne mooy responsabilité loolu gis nañ ni ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal ne kenn ku nekk niveau boo mën a nekk la nga yor ëllëg dinañ la ko laaj muy xadis bu siiw boobu kullukum raain wa kullukum masulun an raiyatihi nga xam ne ku ku nekk ci ñun rek ab sàmm nga mooy ca la nga yor sa sa sa pouvoir sa autorité lu mu tuuti tuuti loole yaa cay responsable ki nga xam ne kër la yor moom moom la war a sàmm kooka ëllëg moom lañ koy laaj waaye ka ca gën a kawe muy imam wala ka jiitam réew kooka moom it lépp lu aw aju ca réew ma moom lañ koy laaj kon mënoo nekk ci am réew dara xew fa ci amoo ci responsabilité loolu mun mënta nekk ndax yow yaa yaa yilif kon lu xew ci réew ma am nga ca am nga ca responsabilité ku jiite ab dëkk lu xew ca dëkk ba am nga ca responsabilité kon ca war nañ la ko laaj lu tax li xew te loolu buñ duggoon ci alxulafaa ur rashidun ci seen dund dañuy gis loolu niñ ko doon sàmmoonteek moom yëg gi njëgoon yëg gi njëgoon responsabilité bu dee doxalin wu leer loolu it li li ñu ci lislaam jàngal mooy képp koo xam ne yontu salaam salaam moo ko wax ne na képp koo xam ne dangaa jiite aw nit di def loo xam ne yaa ngay tricher ca biir kooku ëllëg suñu borom subhanahu wa taala dana la xañ ajjana mu ne maa min abdin yastarcihi llaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wa huwa gaashin li raciyatihi illaa xaram xarama allaahu alayhi ljannata kon ku jiite waroo dugal yenn wuruj ci li nga xam ne moom nga moom nga jiite ci loolu mooy kon transparence dafa war a am loolu ma jiital nag bu ñëwoon ci leetalu sëñ Mbàkke Buso bi di ko jàngat da ngay gis ne kon moom ponki doxaliin wu baax danga koy fekk ci biir leetar bi da gis ne leeral nañu ne ku jiite li war a nekk sa yitte sa jubluwaay sa finalité mooy dundal développer réew mi toppatoo nit ñi ñaar yooyu la wax ndax lam wax lam jiital mooy fashkur lii ala fashkur loolu la njëkk a dénk ngalandu ala fashkur lii yaa ngalandu juuf bi taamiri bilaadi wa tafaqudi ibaadi bi taamiri bilaadi wa tafaqudi ibaadi kon mooy développement boobu nga xam ne moo war a doon yittey ku jiite kon loolu la war a njëkk lañ war a njëkk a xam yittey ku jiite mooy lan mooy développer réew mi saytu nit ñi toppatoo leen ba kenn ku nekk nekk ca la nga war a nekk kenn ku nekk lay sa àq nga jot ko loolu nag ngir mu am am na ñaari charte yoo xam ne ñëw na ci leetar bi ngir loolu mën a am charte bu njëkk bi mooy nga am doxaliin yoon yu leer yoo xàll ngir jaar ca ca moom la ñuy wax stratégie mooy nga xam la nga war a jiital nga xam ay priorité waaye boo ñëwee ci am réew fekk la nit ñi gënoon a aajowoo gën koo soxla nga bàyyi ko fa nekk ci leneen loolu mooy kon nekkoo ci yoonu developpement il faut nga xam lan mooy priorité moo tax sëñ Mbàkke day wax ak nganalu lan la war a jiital ne ko yow ngalanu li nga war a jiital mooy baykat yi kon ku bëgg a développer réew mi ñi nga war a jiital say priorité mooy baykat yi ca loolu ñiy jàng économie ñëpp man man ndax maase nañ ci ne loolu ñuy wax bay sàmm napp te mooy secteur primaire mënoo développer am réew ca développer woo ko maanaam réew moo xam ne la ngay dunde lépp danga koy jëggaane tey ceeb bi ñuy lekk la ca ëpp dañ koy jëggaane li nga xam ne mooy fëriñ bi ñuy dundee bele bi ñu ko lépp la ca ëpp dañ koy jëggaane kon moo tax sëñ Mbàkke ne ngalandu yow jiitalal baykat yi mu ne ko na nga jiital baykat yi ala wa qaddimil xaarisiina alxaarisiina alxaarisiina summa man jara majrahum kon mooy jiitalal baykat yi gis nga da koo répéteel ñetti yoon ne ko lii mooy sa priorité boo ñëwee ci réew tey ku bëgg a defar réewum Sénégal fii tey boo ñëwee mba wàllu mbay mi moo nga war a jiital développement waaye boo ñëwee fàtte baykat yi rek wàcc nga yoon te mu ne yemul ci baykat yi waaye su ma man jaraa majraahum mooy kon ñi nekk ci secteur primaire yépp mooy ñi nekk ci mbay mi ak sàmm bi ak napp bi loolu moom nga a jiital doog caa teg wàllu industrie doog caa teg wàllu service yi moo tax mu ne ko ñoom nag dañoo mat a taxaw ndax li annahum afdalu ummaaril ardi ñoom ñoo gën a mën a dundal suuf si baykat yi ñoo gën a mën a dundal suuf si comme ku bëgg a développer fokk nga jiital baykat yi te ñoom séen ñoo ëpp barke ca lañuy ñuy moo gën a lew waaw moo tax mu ne wa aksaruhum barakatan wa atyabuhum kasban wa xalaala ginnaaw boo amee stratégie bu leer mooy dama bëgg a développer réew mi te xam naa li ma war a jiital léegi la des nag mooy doxaliin wa ak nekkiin wa loola kon mooy li ñuy tuddee bonne gouvernance loola nag boo ñëwee ci leetar bi danga nga ciy fekk lu mat juróom benn mbir yoo xam ne sëñ Mbàkke tudd na ko ci ba ca njëkk mooy maandu mooy justice am ci wàllu àtte waaye justice social am mooy ci wàllu nekki nit ñi te loola ma ngi koy wax ne ko boo dikkee li nga war a def mooy delloo sil ak maandu ci nit ñi mooy ña génne woon exilé leen delloo si leen ñañu tëjoon ngir tooñ leen génne leen kaso yi mu ne ko fa tarudda matrudihim zulman ila mamanihim wa tuxrija masjunihim kadalika ila amakinihim te ñi nga xam ne dañoo néew doole nga jàppale leen mooy couche vulnérable li ñu tudde ñi nga xam ne dañoo néew doole ak ñi nga xam ne ay artisan lañ yor seeni métier yor seeni atelier nga bañ leen fàtte na nga leen jàppale moo tax mu ne ko wa bi taqwiyati duafaihim wa bi muawanati muxtarifihim ala xirafihim nooy yore am réew te sa yoon nekkul ci mënise yi sa yoon nekkul ci maçon yi sa yoon nekkul ci mécanicien yi sa yoon nekkul ci ñiy defari dàll sa yoon nekkul ci tailleur yi loolu mënoo defar réew mi moo tax mu ne ko ñi ami métier na nga leen dimbale te boo xoolee suñ jafe-jafe yi gën a am ci wàllu économie ñëy liggéey mooy état bi lu muy defarloo ca biti la koy defarloo bu dee ay bunt da koy commande ca biti bu dee ay sais da koy commande ci biti ay bureau da koy commande ci biti muy ay milliards yoo xam ne bu ko bàyyi woon ci ñi yor métier ci réew mi ñu di leen ko defloo ñoom seenum liggéey dina dox ca loolu koom-koom yi dina des ci réew mi waaye dangay ngay ay milliards jox ko entreprise bu tubaab mu dem defare ko Chine wala mu defare ko fu ko neex indi jox la ñi ñi sa sa sa sa tëye sa sa menuisier yi nga xam ne ñi ngi yor seeni bant yor seeni matériel boo leen ko defarloo woon ñu boole seeni doole kon xaalis bi ci réew mi lay des kon moo tax mu ne ko nanga bàyyi xel boroom métier yi loolu kon kuy ne réew mi war a yor réew mi bàyyil xel borom métier yi te mi ngi wane ne ñooñu dañ leen a tooñoon mi ngi wax ne ma nga cay junjaale ci biir leetar bi baykat yi niñ leen daan sonale ci buñ fayul ay lempo mu ne ko wa haaka masa misaalan min zalika haulaai ahlu kajoor wa ahlu ñàmbor mu ne madat alayhim sinuuna adida taattalu fiha an adaai jizyatihim li ajzihim fa duribu wa sujinu wa farru min jihatin ila oxra wa biat alayhim amlaakuhum xoola liñ daj kon moo tax mu ne ko boo ñëwee na nga leen bàyyi xel ñi dañoo sonnoon ndax dañoo bekkooroon tax mënuñoo fay seeni impôt ñu leen di tëj di leen génne di nangu seeni alal te koo xam ne yaa ko waroon a jàppale kon yow ngalanu boo toogee na nga jiital ñii nga xam ne ñooy baykat yi na nga ci teg borom métier yi na nga fexe ba kenn ku nekk la muy liggéey nga jàppale ko ba mu gis ca boppam bu boobaa danga nga mën a développer réew mi ñaareel ba nga xam ne indi na ko ca taxaw ci lool mooy muy ngalanu yëg responsabilité li ñu doon wax léegi mooy yëg responsabilité waaye sëñ Mbàkke moom ci leetar bi responsabilité bi da koo delloo ci yàlla nga yëg ne ëllëg yàlla moo la fal kon ëllëg yàlla dina la laaj li nga doon àtte loolu ku jiite ku nekk war nga koo bàyyi xel te loolu boo ko yëgee danga xam ne ñi nga jiite gënoo leen gënoo leen gënoo leen waaye yàlla moo dogal ñu tànn la jiital la ci seen kaw kon waroo yëg sa bopp kon war ngaa yëg ne yàlla mi la tànn jiital la ci seen kaw ëllëg moom dina la laaj amaana bi mu la dénkoon lan nga ci doxal moo tax mu ne ko ala fashkur lii yaa nga la du juuf def lan mooy bi an tuqaddira nafsaka waaxidan min jumlatihim na nga jàppe ne yow kenn nga ci ñi nga xam ne ñoo la fal wala taxsabannaka xayran minhum bul jàpp ne yaa leen gën bal qaddamtuka alayhim li anzura kayfa taamal man maa la fal xool nag li nga nar a def ëllëg kon man man ëllëg suñ borom man yàlla maa lay xool wa ana arfau tawaadaa wa adau man tarafaa kon loolu lu mu am solo la mooy buñ la jiitee da war a torox lu wàcce sa bopp ni yàlla dénke woon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko na nga wàcce sa bopp kon ku jiite da ngaa war a wàcc sa bopp ndax yàllaa la far yëkkati la ni mu la yëkkatee noonu la la mën a suufeele waaye suñu réew yi ñi nga doon gis bu ñu bëggee réew mi fu ne ñu dugg fa ab sëngal lum mu gàtt gàtt ñu ñëw dugg ca biir ron ga bu ñu faloo du mel ne kenn maanaam da fa ñuy teg seen bopp arogance ba ñuy am day ëpp maanaam ku ci falu ñaari weer boo ko gisee bu jàpp ne bu taxawee du nuyoog yow jàmmanteeg yow sax day wàcce boppam kon fàtte na moom kenn la ci nit ñi dañ koo fal loolu lu am solo la yëg-yëg boobu nga yëg ne yàllaa la fal te gënoo nit ñi kon waroo yëkkatiku ci seen kaw waroo leen wan ak rëy dangaa war a toroxlu dangaa war a wàcce sa bopp dangaa war a nekk koo xam ne yow danga leen di liggéeyal ba ca topp muy ñetteel bi mooy yamale googu mu doon ñu doon wax sëñ Mbàkke da ko cee dénk nga la nu ne ko na nga yamale ci li ci gën a doy waar fii daf koy wax ne ñàkk a yamale loolu boo ko defee haute trahison la li ñuy tuddee haute trahison mooy da ngay wor république bi kon injustice haute trahison la maanaam ñàkk doxal ak maandu ku ko def loolu war nañ la cee dañ la ko war a dañ la caa war a topp dañ la caa war a topp ndax dañuy wax ne ki jiite suñu ñu ko topp ci lenn lu may haute trahison mooy xiyaana xiyaana te xiyaana boobu nag sëñ Mbàkke nee na ñàkk a yamale xiyaana la moo tax mu ne ko ala fashkur li yaa nga ala fashkur li bi an laa na nii wala taxuuna dawlatal jumhuriyata fa innaha mabniyatun ala al musaawaat ne na ko bu ma wor man yàlla kon li mu war a jiital bul wor yàlla ndax moo la fal sàkku ci yow nga doxal ak njub waaye république bi nga xam ne dañ ko tabax ci égalité yamoo kon boo wut wor nga république bi toujours damay wax baat yi nga xam ne ñoo lañuy jëfandikoo léegi jàpp ne mag ñi xamuñu woon lan mooy république fi ne dañu jàpp ne sax sëriñ si xamuñu république waaw sëñ Mbàkke ba muy wax lii boobu amaguñu indépendance ba mu naan kuy ku wut yaa ngi wor ad dawlatal jumhuriya mooy l'état républicain bu doon léegi mooy loolu lay tekki te mu ne ko ndax ab république fu ñu ko tabax mooy dañ ko tabax ci yamale waaye tabaxuñ ko ci dictature baatub dictature la jëfandikoo ndax istibdaat mooy dictature mooy yow la ngay def doo ca seet kenn doo ca seet lenn na ko bëggee nga koy defee na nga ko xalaate na koy defee ca it boo koy def doole nga koy defe moo tax mu ne ko kon na nga na bul wor bul wor al al jumhuriya ndax jumhuriya bi dañ koo tabax ci yamoo waaye tabaxuñ ko ci al istibdaat istibdaat mooy dictature ñetteel ñeenteel ba mooy moytu corruption tey doxal lu leer chafafie bi ma doon wax léegi nga xam ne dañu jàpp ne luy doog a xew la waaw dañu jàpp ne daal ci année année quatre-vingt yi wala année quatre-vingt-dix bi nations suñu tàmbalee wax bonne gouvernance ci la yii yëpp xew te nga gis ne suñ mag ñi ñoom dénkoon nañ ko dénkoon nañ ko ñi doon jiite doon nañ leen ko joxoñ ndax lu mu ko wax xoolal fi ne corruption mooy li gën a jafe ci suñu réew yi waaw mooy mooy bëgg a rey suñu réew yi mooy ger mooy ger ger dafa maanaam ca anam gëm gën a yaatoo mooy ca kaw boppu état ba ba ci suuf ba ci bureau yi ger mooy li nga xam ne bokk na ci li ñuy jéng loolu bu ñu demoon ba génne fi ger ndax ger li muy indi dafa bari bari na lu ñuy liggéey loo xam ne ger day tax ka ko ñu jox ko kuñ ko wërta jox buñ ko joxee kuñ ko wërta jox mu def ca lu mu ca wërta def bu boobaa day lor ñëpp nga nga déglu li sëñ Mbàkke bu sa wax ngalanu ne ko wa bi an laa bala rishwata fa innaka in irtashayta rafata raashiya fawqa qadrihi wa xatatta gayrahu min manzilati ne ger li tax mu bon saa buñ la geree la muy jur mooy kala ger da ko yóbbu ci daraja joo xam ne yëggu fa danga ko jox lu mu yeyoowut nga xañ ko loo xam ne moom moo ko yeyoo woon kon ndax booy bu ñuy joxee marché am ku gere am ku gerewut ka gere ñu jox ko ko mën na am moom mënu koo liggéey danga gis marché bu ñuy joxe ñu jox ko koo xam ne moom day wëlbatiku joxaat ko keneen ndax moom xamu ca dara waaye jaar na ci suuf nee xalaate ñu jox ko marché ba léegi lam xalaat yi dana ko génne ca kuuba bu boobaa qualité ba mu waroon a defar dootu ko defarati bu dee tali ñu def ko mu waroon a am juróom fukki at mu am fukki at toj yàqu yàqu bu dee bâtiment bu waroon a taxaw fan juróom fukki at mu am fukki at ak tàmbalee fet ñu war koo toj defaraat loolu lépp kon ger ba moo ko indi te mooy jox nit ki lu mu yeyoowut ak xañ nit la mu yeyoo te loola la koy indi mooy riche wa mooy ger moo tax mu ne ko boo bu ñu la geree danga jox nit lu mu yeyoowut da nga xañ nit lu yeyoo te nee na wa kilahuma zulmun wa ana la uhibbu zalimin loolu tooñ la te man yàlla bëgguma ñi nga xam ne dañuy tooñ mu ne ko nag wa innaka in lam tartashi boo nanguwut ger nga doyloo liñ la jox mooy salaire bi ñu la bax jox mooy bal iqtanaata bi ma ruttiba laka nga xam ne baatub raatib sax la jëfandikoo foofu baaraktu laka fiihi wa xanaa alqanaata allati hiya afdalul arzaq boo dayloo boo nanguta ger boo yamee ci liñ la rëddal loola lim lay jural mooy ak doylu te noona doylu mooy koom mi gën a yaatu mu teg ca nag loo xam ne mooy ki jiite war naa am jikko yoo xam ne dafay tax mu am hauteur wërta nekk kuy fayantoo wëkkonte nekk ku iñaan wóotu ne koo xam ne maanaam day topp day topp mer mu ne ko ala fashkur li yaa nga landu bil afi am man zalamak li ngay njëkk def mooy danga may sant man yàlla mi loo may sante mooy jéggalal ñi la tooñoon waaye ñëw war a jublu ci defar réew mi ngay topp diw defoon na ma dara diw defoon na ma dara nangam nangam di toppaate yow ba la nga waroon a def defoo ko indi ay coow yoo xam ne réew mi soxlawu ko loolu ku falo war nga koo moytu ku falu li nga war a teg ci sa kanam mooy fexe ba tooñ du mën a amaat bu dee ay luwaa yu war a soppi bu dee aw tërëliin yu ñu war a soppi ba nit ñi dootuñu ma am mën a tooñ loolu ngay def mais la weesu woon nga wëlbatiku nekk ca bàyyi li ci sa kanam loolu ku ko def sa bopp ngay yàqal moo taxoon mu ne ngalalu ala fashkur li bila afwi amman zalamaka ndax yow kii la tooñ bàyyee ma ko man yàlla man boo ma ko bàyyilee man danaa fayyu danaa la fayul te bu ma la fayulee danaa la fay teg moo tax mu ne ko wa daani wa iyaahu bàyyi maag ñi la doon tooñ fa inni ana almuntaqimu lil mazlumina min alzalimin man maay fayul ñiñ tooñoon ca ñi leen tooñoon kon yow bul am sol bu am soxla ci ñi la tooñoon ci loolu état bu ñëw ku falu fekk yow dañ laa tooñoon bul fayul sa bopp bul jéem a fayu fexeel rek ba tooñ du mën a amati waaye yow jéem a la xool sa kanam jéem a la xool nekk ci li tax ñu fal ndax booy fayu rek yaa ngi xool sa bopp defala toogu nit ñi de nit ñi la fal moom ngir nga fay yu taxul ñu la fal la dañ laa fal ngir nga defar réew mi boo dee fayu sa mbirum bopp la léegi ca gis nañ loolu ci histoire lim lim jur moo ne moo kon kon na nga am jikko ci bañ a fayantoo waaye na nga am jikko ci bi intaai man xaramaka wa bi wasli man qataaka yow ku la xañ yow doo jox ki la xañoon waaye boo toogee ne man diw ak diw dëkk sàngam joxuñu ma woon seen carte kon man foofa duma fa def dara kon loolu jëfandikoo woo ndigal li kon da war a am hauteur danga war a am boo xasee bay falu nga xam ne yow ñëpp nga jiite ñi la dugaloon sànni loon carte ak ñi la ko sànni lut ñëpp léegi tey yaay seen njiit kon waroo xool ñii duma fa def dara dëkk sàngam du ma fa def dara ndax watoo luñ ma waaw te loolu nag njuumte lu rëy lay doon da ngay dégg ñu naan diw sàngam moom dëkk sàngam duñ ko woteel kon nag naka la fay defee nàngam naka la dafay defe nàngam déggoo ngeen fii ku doon wax naan euh, <laughs> dañoo war a daaj ji autoroute bi loolu euh, lu mat a moytu la wa bi wasli man qataaka ku la dog danga ko war a jokk loolu mooy jikko yi ku jiite ku jiite danga war a am jikko yu rafet mooy di jéggale di jëllale ba noppi ku la xañ nga mën koo jox ku la dog yow yaa ko war a jokk ba ca topp muy juróom-benneel ba mooy na nga bàyyi xel na ngeen bàyyi xel yéen ñi falu li nga xam ne mooy intérêt réew mi fii sëñ Mbàkke Buso dafa wax ak ngalanu ba noppi wëlbatiku wax ak ay alliés yi ko fal muy lu am solo ndax bari na jafe-jafe yuy am yoo xam ne ci allié lay doon ndax su fekkee yow xam nañ ne réew mi kenn mënta falu yow képp te àndoog ay alliés léegi nga am alliés yu bari ma mu ñëw jàppale la ba nga falu kenn ku nekk ñëw na da may sédd léegi bu nee la dama da nga may sédd nga ne ko danaa la jox ñaari ministère kee nga jox ko benn ministère kee nga jox léegi kon day mel ne ki la jàppale ko da koo fayee poste bi nga ko jox léegi poste bi nga ko jox kon moom politique bi mu def moo tax nga jox ko ko moom it kon day wëlbatiku kañ def ministre mu xool gox ba mu doon politique ña ko doon jàppale mu tànn fa ay directeur fayee leen ko directeur booba xool nit ñi moom it ña ko doon jàppale ca gox ba mu buy jël ca lay jël buy recruter ca lay recruter fi ne kuñ ci fal boo demee boo demee cabinet am wala boo demee ministère am da fay fekk waa dëkkam ñoo fay fees dell nga xam ne kon mbir mi dañ koy jàppe mbirum fay mbirum lu ñuy séddoo moo tax dénkaane bu am solo la sëñ Mbàkke bu su dénkaane fii mu ne yéen ñi nga xam ne yéen a ko fal li ngeen may sante ma ma man yàlla mooy lan mooy ala fashkuru li yaa muntaxibihi bi an tuinuuhu ala taamiri hada al qutri said li ngeen koy dimbale ko ci deva luy développé réew mi ci loolu ngeen koy dimbalee wala yutaalibuhu ahadukum bi muwaafaqatihi lahum ala ma yaxtasuuna bi manfaatihi bal bi ma fiihi manfaatuhum wa manfaatu xayrihim min jinsihim kon yéen ñi nga xam ne yéen ko tànn bu leen ñëw di sàkku ci moom loo xam ne seen njariñul bopp la waaw ñun ñoo la faloon kon defal ñu nàngam ak defal ñu nàngam déedéet waaye ñoo la fal waaye kon defal ci réew mi nàngam ak nàngam defal loo xam ne njariñul réew mi lépp la jàpp naa ne su fekkoon ne ku falu say allié loolu lañ lay wax ne sàkkuwuñ ay ministère sàkkuwuñ ay direction wuñ dara waaye dañoo bëgg rek yow nga doxal yoon doxal réew loolu kon nit ki bo dana féex waaye su fekkee ne kenn ku nekk dana ñëw man sama li may pesé nangam la kon benn ministère doyuma jox ma ñaari ministère ñaari directeur euh, nangam nangam euh, jox ma ay PCA jox ma ay nangam nangam ñu sedd la yow nga dem ca ginnaaw sa base politique di leen séddal di leen sédd loolu mooy indi li ñuy wax clientélisme politique loolu nag réew mi fii ak nañu ci buñ yaakaaree nañ ko defar du sotti waaw moo tax ndénkaane bi am solo lool dégg nga moo tax mu ne loolu bu ngeen ko defee yéen ñi ko fal bu ngeen ko defee lim leen di jural mooy fa in na nazar nasartu ayyaamakum wa xallattu majdakum loolu bu ngeen ko defee danaa fexe ba yéen ngeen am ndam danaa fexe ba yéen it ngeen yàgg fi lool ngeen yàgg fi lool kon ku fi bëgg a yàgg na nga moytu allié yoo xam ne loolu nag allié yi lañ koy gën a wax sax fii ndax yaa muntaxi bii la wax yéen ñi ko tànn yéen ñi ko fal waaw ba ca mujj ci yi nga xam ne mi ngi ci yim dénk ngalanu ca nga xam ne boo ci xool munta ñàkk ci doxalin wu jub ci am réew mooy nga sàmmoonteeg ay compétence ay man-man bañ a sàmmoonteeg kii dafa ànd ak man buñ la falee xoolal ñi am man-man nga far leen ñu liggéeyal la waaye nit ki man nekkoon na sama militant ràññiku na ci waaye amul benn compétence waaye teewul danaa ko jox ndomba tànk la nga ko jox moom day jàpp ne politique ko ko du ca liggéey dara loolu mooy indi yàq mooy indi suñu réew yi mënuñoo yam ci ministère yu yam suñu réew yi mënoon nañoo am fukki ministère ak juróom waaye fokk nga am fanweer ak juróom ndax ñi nga bëgg a neexal day bari kon bii nga xam ne moom la mujje dafa am solo mooy bul xool ñi àndut ak yow nga wan leen ginnaaw doo leen jox dara doo leen fal dara ñi àndoon ak yow nuñ mën a mel nga jox leen ay ndombay tànk nga teg sa tànk ca lañ doon def mu ne ko waalamu annahu lam yakun zamanu zamanu lmaadi zamanan musliman illa bi rafi muwaafiqi fawqa qadri nee na ko jamono ji weesu woon li taxoon mu lëndëm mooy kii ànd ak yow da koy teg fu kawe darajaam wa bi ixdaai an ujarihi wa bujarihi nga teg sa tànk nga nga nga teg sa tànk ci ay ayibam yépp nga nëbbal ko ko man daal sa ki far yow moom day baax waaye wa wa bi isaai l muxaalifi walaw taqallada min al fadaili ma sha ki nga xam ne wuute na ak yow nag moom danga koy lor da koy koy béccingal compétence yu mu mën a am melokaan yu mu mën a am ak ngëneel yu mu mën a yana am kon loolu mooy ndénkaan yi nga xam ne ci tënk moo nekk ci biir bataaxel bi nga xam ne sëñ Mbàkke dénkoon na ko Ngalandou Diouf te muy bataaxel boo xam ne képp koo xam ne falu nga war nga ko bàyyi xel ndax boo ko jëfandik boo ko jëfee day jàpp naa ne mooy ëpp doole la la tubaab yi wax la la tubaab yi rëddal boo jaaree fii ci lii ci ngay ëpp ci lay ci lay ci lay ëpp njariñ te loolu nee na ci biir leetar bi bu ngeen ko defee sant ma man yàlla ci lii ma leen wax ngeen def ko bu boobaa ak dolliku rek ngeen cay jële moo tax mu ne fashkuru lii wala takfuruun fa anal munzilu la in shakartum la azidannakum wala uxlifu lmiaat te yàlla moo digge bu ngeen ma santee ma dolli leen ca ni kon ni mu doon waxee mooy niñ war a sant yàlla ci saytu liñ ñu war a sant kon xam naa foofu la ñuy waxtaan wi ndax euh, waxtu wi jot na te euh, liñ ci mën a tënke rek jeexitale ko rek mooy kon diine moom moo war a giide politique waxtu wu nekk maanaam guider yo diine nitik diine moo war a wan politicien bi fan la war a jaar ndax suñ diine jàngal nañu jàngal nañu lépp ca leetar la boo xam ne war na war nañ koy jàngale ci suñu université yi nga xam ne dañuy jàngale politique ndax bu am njariñ la kon ñi ngi jégglu ñëpp di balu àq ñëpp di ñaan yàlla nag réew mi yàlla na fi yàlla teg ki gën ci réew te yàlla def ci jàmm ba li nga xam ne moom lañ bëgg mooy réew mi jëm kanam nit ñi dund ci jàmm mën a jaamu yàlla man a tabax réew mi yàlla nañ ko yàlla defal ñaan suñu Muhammad Muntaqa mu yàgg fi lool te yàgg yàlla yokk wér wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi ñu ngi lay sant bu baax a baax ci waxtaan wu am solo wi ak ci leeral gi yaakaar naa leen fi indi doy na sëkk sëkk ab bind solo si waxtaan yi itam feeñ na ci demel ne daanaka rek naa waxtaan wu waxtu wi xat na li ci ëppoon solo lépp rek muy solo si waxtaan wi week leeral leetar bi contexte bi ñu ko bindoon ak li taxoon mu bind ko ak ci méthode bi mu ko bindee loolu lépp ñëw na ci ñëw itam ci biir leetar bi muy li ne ci biir contenu bi muxtawa bi wax li sëñ Mbàkke Buso tàmbalee leetar bi damay wane gis-gisu lislaam ci wàllu nguur wane ne moom yàlla moo koy joxe ku falu yàlla moo la fal mooy falu ko ko soob loolu tàmbali bi waaye wane melukaan yi nga xam ne tam ki ñuy fal war na koo amee te lépp di dellu ci diine rek nekk ab jullit wala nekk koo xam ne ku wóor lay doon ak yeneen yi cay topp koo xam ne itam ku ñëpp d'accord lay doon yaakaar naa ñëw na itam ci li nga xam ne moo composé lettre bi yépp li ci jëm ci maam Cheikh Anta mi nga xam ne euh, am na ci solo lool ndax daanaka moo tax ñu bind lettre bi ak li ci jëm ci Ngalane Diouf mi nga xam ne boobu moom lañu tànnoon mu teewal Sénégal ca euh, parlement bu parlement bu français waaye indi na itam yi ëpp solo ci cëslaay yi nga xam ne yorin bu baax ak saytu ak doxalin bu baax mënut a ñàkk mu sukkandiku ci mu tudd ca yi ci ëpp solo rek muy responsabilité waaye li ñu tuddee safaafiya muy transparence tudd ci itam musaawaat muy yemo tudd ca participer bi nga xam ne population war nañu koy participer ci doxalinu euh, nguur gi ak di woote am sañ-sañ bu baax a baax ci li ñuy doxal ñeent yooyu benn bi leeral na ko waaye mu ñëw ci biir leetar bi itam nag génne ko ci ne nekkate suñ ba yi yëpp junjoon na ko yii yëpp daanaka benn bu ci nekk wax na ci dañ jàppoon ne lu jamono indi la rek ay euh, baat yu xew léegi yoo xam ne dañ koy dégg ci organisation yeeg euh, mbootaay yi nga xam ne ñooy saytu àdduna léeg-léeg léegi jamono yi tey jii waaye nekkate suñ mag ñi di lépp daarañ ci wax daarañ ci àddu ci waxtu woo xam ne teeloon na lool mu delluwaat ci bind yu mel nii ak gëstu yi ak njàngaleem yi nga xam ne moom la si suñu mag ñi bàyyi ngir di ci tabax suñu réew ci wàll yépp loolu mooy li gën a yell te junjoon na ko sax ci tàmbali bi kon Serigne Sam ñu ngi dellu di la sant bu baax a baax te di la gërëm ci leeral gi ak yaatal gi dellu di sant mbokk yi nga xam ne ñoo doon topp ak fu mën a nekk ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jàllale ci média bi tàmbale ko ci euh, MKTV ak mboole mi yeneen site yi ci des yépp rawatina As-Samadiyya TV mi nga xam ne moom da koy def direct euh, ak waa Lamp Fall ak yeneen ñuy fàttali ne tom bi nga xam ne moom la ñu war a euh, waxtaane suba xelam laaj ak tontu lay doon ki ñu ciy dalal di Serigne Cheikh Naa Mbacke Abdoul Wadoot ñi nga xam ne itam ñoo yor seeni laaj bëgg ko leen ci gàggante mën nañu ko jaarale ci 78 689 28 28 euh, wa fi xitaam al jalsa naskuru ixwatana alkiram min euh, misra wa nrahab bikum fi masjidikum hadihi fi hadihi albuqa almubaraka marhaban bikum ahlan wa sahlan wa naskurukum jasira sukr Cheikh Abdul Qadir idan kon day mel ni dañuy dellu rek di ñaan yàlla mu ni ko suñu saa waxee ci mujjantal ga rek mu def jàmm ci réew mi ak naataange ak yokkute te ki gën ci réew mi yàlla teg ko ci réew mi wa axiru daxwaana alhamdulilahi rabbil alamin yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi